salaamaaleykum. waay salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu fay bu baax. tur bi nan la. mbay Dieng. waaw mbay ñu ñuy waxtaan tuuti si actualité. Euh, par rapport li nga xam ne mooy luy xew Dubaay. ah suñu jigéen ñi ñu fay dégg. yow loolu ban gis-gis nga si nga si am. Euh, loolu gis-gis bi sama gis-gis bu ñaaw rek rafetlu wuñ ko ndax doo dee xool alal àdduna moo tax ñu koy def te alal àdduna jëru ko temps bi doo dee xool temps bu dund bu gàtt la ay 60 ans 75 ans. léegi ku ko am rek mën nga ni gudd nga fan kon dara joru ko ngay def loo xam te ni diine rafetlu ko te lépp loo xam te ni diine rafetlu ko rek jàppal ni yaa sa musiba ndax loolu mooy sama xalaat alors at mi ko. ñu ngi nuyu Sénégalais yëpp di jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla doole jàmm way action bi gis nañ ni mu demee lépp mais loolu wax dëgg yàlla rafetul waxuma a Sénégalais mais ak ku mën mënti doon rafetul quoi. ñu ngi koy ñaawlu bu baax di ko méttilu tamit suñu mbokki sénégalais yi ci bokk oui ñu ngi koy méttilu daal wax dëgg yàlla ñun biñ gisee information yi biñ gisee affaire ni mu demee tamit daf ñu jëlee kaw bu baax ndax ñun vidéo yi sax dañ koy seetaan mais suñu yaram da ciy daw ñun dañ ciy am naqar en tant que sénégalais yu ci bokk ñoo yëg ne lool ay sénégalais ñoo koy def loolu dañ ci dañuy métti loolu dañ ci am naqar waaw rafetluwuñ ko daal te ñaan yàlla tamit bépp sénégalais bu ci bokk ñooy ñaan yàlla nga génn ci di la tàll loxo ngir yàlla nga génn ci setal deru Sénégal fekkee Sénégal ak mboolem képp ku ci bokk tamit ñu ngi ñaan yàlla nga génn ci ku ci duggul tamit ñu ngi lay ñaan yàlla bu sa xel mu sa def ba nga dugg ci ndax loolu wax dëgg yàlla rafetluwuñ ko ci ak bépp doomu aadama bu mën di nekk waxuma la en tant que jullit ngay wuyoo ci tur yonente bi te tamit ne gëm nga yàlla alal jaral la yenn yi wax dëgg yàlla rafetluwuñ ko di ñaan yàlla bépp Sénégal bu ci nekk daal nga jëm ci génn bu ci duggagul bul ci dugg wax dëgg yàlla bu ñuy dem Dubaay ak euh, ci réewu tubaab yi ak réew bu mën di nekk ñooy ñaan yàlla ku fay dem nga bëgg liggéey nga am alal alal neex na lool ñun moo tax ñuy dang-dangi nii mais nañ ko am ci lu lew ak ci loo xam ne neex na yàlla wax dëgg yàlla rafetluwuñ ko ñun bu ñuy am alal daal nañ ko amee ci lu neex yàlla ak ci lu lew mais pas ay yeneen noonu ñu ko ciy amee ñaan yàlla daal ñooñ tamit mën a tamit seen xel moo toll foofu ak fi seen xel tool foofu tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla seen xel dellu si bañ génn ci loolu noonu ak jàmm ak salaam. non vraiment moom metti na ma moom man comme si que dama ci dama ci am sax parce que maanaam rafetul quoi ci image su Sénégal ak ñun nit ñu nawee ci àdduna bi xam nga buñ demee bay ñu naan ay dañu am ay xale yu jigéen ñu ñuy jëlee Sénégal di leen yóbbu Dubaï ñuy def de n'importe quoi maanaam jekkul daal ci image Sénégal man su même su ma man même man sama jëm bopp sax man dama rus ci affaire bi. parce que neexut ci xol quoi ba pare lii dafa ñaaw waroon nañ ci tudd ñeneen ñu dul ay ñun Sénégal ak ñun jikko yi ñu xamee ak valeurs yi valeurs yi ñu am jeekut jaaduwut ko pour man. a ah, loolu moom jaay sa la moom am na ñu bëri daan dem Dubaay loolu moom euh, instant yi nii moom day soog a feeñ rek waaye loolu moom daan na fa am moom Dubaay bu bëri da nga dem ba pare jékki-jékki ñëw indi ay millions yu bëri xam nga euh, dëkk boo xam ne ñu ni si Dubaay dëkk boo xam ne ñu ni euh, neexut si góor. si jigéen la gën a neex xam nga loolu yenul maanaa dem fa moom am na yenn yoo xam mënoo faa dem tëb tëb rek yor ay millions yu jeex am yoo moom naaj sur moom du. waaw par rapport vidéo yi circulé yow loolu is gis nekkul gis-gis bu ñaaw si yow. ah loolu moom lu ñaaw moom lu ñaaw trop lu ñaaw moom trop trop lu ñaaw la trop moom rafetul moom si gis-gis quoi te day yàq lu bare day yàq suñu réew mi quoi te Sénégal ak Cameroun ñoo ko seq loolu moom rafetul naaj sut ci day day day day saltel de ci deru maanaam si euh, deru maanaam nit ku ñuul quoi surtout africain yi noonu noonu ndax suñ ñu mag ñu bari jaar nañ mënoon nañoo mënoon nañoo am fu gën a rafetee daal waaw lu gën a mën a lu gën a lu mën a lu gën a mën a rafet daal mënoon nañu ko am ba mu des moom ñuy teewal ci affaire yi ger yi yoo xam ni jigéen ñi ñu leen bo tëddal ay ay ay mala yi nii ay xaj yooyu noonu. Ah, loolu moom. loolu moom vraiment vraiment jaarul quoi vraiment alal moom am na loo xam ne moom jaru ko quoi billaay ay porte à porte dem Dubaay ak ka maa ngi déglu na ay xabi bi kamont Dubaay ak yooyu noonu xam nga daan naa sul quoi billaay su ma soo yoon daal gars yi dem Dubaay ah ñu tëñoo suñu réew fii lépp am na fi quoi vraiment mu gën a nice wallaahi mu gën a cool quoi billaay. ñaaw na. en plus salte na te defe naa tamit nit ku nekk war nga mën a beneen liggéey bu dul loolu Euh, y'a pas su métier daal liggéey yaa ngi fi mun nga jaay yette mën nga jaay caaf mën nga fobeere mën nga bale mun nga am liggéey bu na saf loolu ñaaw na trop moom ci li ma mën a xam ñaaw na lool. en plus ay sénégalais lañ te dëkk boo xam ne macha allah dëkk bu baax la dëkku teraanga la kon kon ñuy def ñaaw na daal ci ma mën a wax trop. mais lu tax ñu ñu bàyyi ñëpp aussi yéen jigéen ñi ñooy la tuumaal lu tax loolu. waa jigéen ñi ñoo gëmul seen bopp rek question ñoo gëmul seen bopp ñoo gëm seen bopp ñi gëm seen bopp ba tey mais ñu gëmul seen bopp ñuy ñàkk gëm seen liggéey ngay liggéey ñooy dem beneen métier ñu def beneen métier bëggu lu bon la daal si mun a wax bon la parce que am na loo xam ne day des sa doom mun na màgg wala keneen màgg ñu tàppee ko wala ñu xasee xasee ko ko day dem ba ci ay sët sataat te am na toll nañ foo xam ne nopp moom ak borom lépp la defal lu baax parce que nit dañuy wax rek sëgam boo defee ñoo boo defee loo xam ne ñëpp a teg seen bët kon dafa war a a ñaaw da dëkk ci nit sax ci koñ wala waxal loo xam ne yow defoo ko yëgoo ko loo tuumaal nga jéem a fexe loolu dañ macha loolu def ñëpp di gis tamit. c'est possible waaw oui. loo ni. waaw léegi ñu waxtaan tuuti actualité par rapport li nga xam ne moo xew Dubaï ñu siy dégg ay Sénégalais yow loolu ban gis-gis. non loolu moom loolu moom tamit xam nga ñun Sénégal kese lañ am te bu Sénégal bëgguñ waruñ kenn yàq suñu der quoi yooyu noonu waaw. su ma sañoon nag ñu toog suñu réew quoi jàppale suñu réew tamit loolu laa baax ci quoi. Sénégal lu am fii amul fenn ambiance beeg lépp fii lépp fii lay xewee voilà kon nag ñu toog suñu réew luñ am suñu lañ ko amee moo loolu moo gën ñu def def loo xam ne gars après day ñaawal suñu réew quoi Sénégal Sénégal ngay dégg dégg benn naar loolu da baaxul dañ xoolaat affaire yi waay bu baax. ah loolu moom wax dëgg yàlla ñun dañ koy ñaawlu quoi dëgg yàlla parce que Sénégal mooy loolu quoi Sénégal ñoom mënoon na leen dégg ci leneen ba mu des loolu affaire Dubaay affaire. kii loolu dafa ñaaw sax barki alxuraan dafa ñaaw trop trop trop trop man daal Dubaay moom moom moom mu demee noonu mais man rafetlu ma ko quoi waaw beneen pays ma mënoon na tudd yëpp de Sénégal waaw Sénégal parce que kilifa diine yi ah, euh, mu des loolu quoi dem Dubaay loo xamante ni ay kayit la boo ko taalee mu na loo xamante ni daal mënoon nañ cee tudd bépp pays ba mu des Sénégal wax dëgg yàlla borom. bu njëkk par responsabilité bi dafa jógee ci parents yi. ndax boo seetloo fii Sénégal réew jàmm la réew teranga la mais léegi dañoo nekk ci réew bi nga xamante ne léegi parents yi dañuy seet seen doom ñi def lu leen neex du ñeen faale xoltuñu ci lu ñu nekk éducation bi jaaratul yoon léegi da ngay ñëw def lu neex sa parent ne ah, ko waaw loolu moo fi moo tax alal moo ñu jiital ñun ñëpp te boo seetloo tamit léegi alal dina def loo nit lu mu bëggul def te léegi boo gisee jigéen yi sax léegi jigéen ñoo ci ëpp jigéen ñi alal da jaral lu ne waaw moo tax waaw. pour yow lan ban lan lan moo leen tax ñuy def loolu noonu. non parce que tegante bët bi la rek parce que boo bëggee maanaam nga nekk ndekk ak nit wala nga dëkk ak nit xam nga nga xëy gis ne mu ngi avancé xam nga yooyu yow nga it nga bëgg yow kut ka kut yow nga avancé ba nekk ci position bi mu nekk. te man pour man loolu maanaam faiblesse la ci nit quoi pour man pour man nit ku nekk ah, maanaam lu la yàlla wërsëgalee rek man pour man da nga war a jàpp loolu quoi. waaw ah, loolu état bi si dara loolu yar yar bi si biir kër yi la rek bu état si dara état si nekk. mu taxaw ni la dama lay surveiller loolu mu ta nekk nit ñi ñoo war a defaraat jikko yi daal xam ne jikko yi mu commencé di yàqu doo dee xool daal dara at mi joru ko daal at état bi nag mënu si dara loolu nit ñi la rek ku si nekk yaa war a xool sa digganteeg sa borom ba moytu alalu àdduna daal loolu laa si gis non alalu àdduna moom jarut lenn lenn lenn looy ñaawalee sa image ak say image sa maanaam say image sët ñu ñu war a ñëw sa ginnaaw ñoo xam ne maanaam ci yow lañ war a sosoo maanaam ba bàyyi leen fi woy wu rafet comme ni la say waajur bàyyi lee woy wu rafet ok jërëjëf. non alal lu àdduna jarul loolu mais nag nit ñi ñoo bokkul yam parce que am na ñoo xamante ni alal jaral na lu ne seen àdduna problème bi foofu la keroog rek laa ci waxtaan ak sowaay mi mu naan ma loolu baaxul ma ne ko baaxul ku ne xam ne baaxul mais nit ñi ñoo bokkul yam yow mii suñ ko bëggoon a def loo da wala mais am na ñoo xamante ni boo ne leen alalu àdduna lii lii alal ju jeex gars yi waxuma la def loolu mais lu raw loolu dañ koy def ndax alal mais baaxul quoi loolu moom ku ne xam ne ne baaxul ku ne ci adduna xam na ne loolu baaxul wax dëgg yàlla man moom rafetlu ma ko xaw ma nag keneen waaw mais man moom rafetlu ma ko. vraiment alalu àdduna moom jaru ko moom nit ki moom sa ñaq rek ñaq rek doy na doy na doy na liggéey quoi billaay ñun ñoo ngi ne ñun ñun moom ay jeunes lañ quoi ñoo ngi fi Colobane ñoo ngi daan suñu doole bagage ñu ngi ñoo ngi daal mais pas ay ay porte ay je xaw ma lekk day la xaw ma nu tuddee mais daal c'est bizarre quoi wër na yàlla en tout cas daal maa man man daal maa ngi lancé message ñu nga xam ne jeunes yi nga xamante ni ñoom ñu koy def même bu dee même naa sul quoi vraiment billaay jeunes yi yooyu noonu nañ jël référence su ñun quoi su ñun ñii ñu nga xamante ne ñoo ngi fii Colobane di daan suñu doole waaw. alul àdduna jaru ko jaru ko jaay sa ngoor moom am na yenn yoo xam ne jaru ko loolu dafa rafetut naasul loolu jaay sa ngoor la te baaxut quoi. am na yenn yoo xam moom naa loolu moom jaay sa ngor la. man man laa wax de alalu àdduna jaraluma ko xaw ma nag keneen mais man alalu àdduna jaraluma loolu noonu. man moom wax fa dëgg yàlla dama part personnel jaraluma ko sama rakk tamit su ma gisee muy def fi naka su dul noonu damay taxaw wax ak moom ndax sama rakk la mais am na jigéen yoo xamante ni moom alalu àdduna da leen jaral ba jaral na leen sax rey seen copain bu ñu nekkal barki sëñ Fallou ndax gis nga fi ñu bëri da ngay dégg ñu bi moo rey kii ndax jigéen xam nga jigéen moo rey kii ndax copain waaw loolu la nag alal àdduna tamit dañ ci war a bàyyi xel bu baax ndax fii la yem alalu àdduna du dem fenn fii lañ koy waay ñun ñëpp ndax sa jikko rek moo lay topp ak sa jëf boo seetloo tamit dañu war a bàyyi xel bu baax ne alalu àdduna day jeex te sa jëf moom fii ba suba ala ba ilaa yoomi diin moom da koy yóbbaale mais alal moom mënoo ko yóbbaale waaw. parents yi ñu ngi def lu ñu mën mais c'est que jigéen ñi maanaam man daal maa laa mënta comprendre liñ fi ñu teg xaalis to xaalis lii benn affaire bu benn objet bu ndaw la nii rek bu ñuy jëfandikoo ci benn laps bu gàtt dem bàyyi ko fi moo tax loo ciy def rek na rafet parce que day jeex ko soit da dangay dem ba ko fi wala mu dem bala fi. jigéen ñi xaw ma lan moo tax ñuy def loolu c'est parce que tamit am na ñoo xam ne comme ni nga ko waxee nii rek am na ñoo xam ne alal moo leen fëkk moo leen jaral lool loolu mais jigéen ñi wax dëgg yàlla gisuma benn melo boo xam ne gisuma benn loo xam ne war na leen a jaral ñuy def loolu ñoom gisuma leen lu leen war a jaral ñuy def loolu bu fekkee sonn. fii nii Sénégal mënuñ sonn sonn goo xam ne mën nañ dem foofu noonu di def lu leen di jaral loolu noonu ndax fii kenn sonnewul noonu yaakaaruma ko mais man moom alal ma ko wax dëgg yàlla ok. waaw jigéen yi dëgër nañ bopp dëgëruñu bopp tamit ndax tey jigéen benn benn côté neex naa waxal ndax jigéen boo waxtaan ek moom dina dégg mais dañoo nekk si génération bi nga xamante ne jigéen ñi léegi déggatuñ dara amatuñu amatul parent amatul dara waaw ndax réseaux sociaux yi tamit léegi da ci am de responsabilité waaw. non jigéen ñi moom dama leen di conseillé a affaire waaw parce que euh, dama xam ne jigéen mooy jur wàlliwu jigéen mooy jur sëriñ jigéen mooy jur nit ñu baax ñëpp jigéen ñoo leen di jur ñoom waroon nañoo jomb dem ba fee ñu leen di def la loo xamante ni wax dëgg yàlla aram na baaxul te ñun ñëp soaay kaay moolu benn affaire de ñun ñëpp dañuy dee de adduna bi nii boo yaakaar ne da ngay dund jëmale suba nii mooy loolu de da ngay dañuy faatu de ñun ñëpp ay dee te ku dee yàlla da lay laaj woo ba nga ñëw mu laaj la waaw jigéen ñi moom wax dëgg yàlla man maa ngi leen di ñaan rek waaw ñi ko jot a def nag moom maa ngi leen di ñaan moom ñooñu moom yàlla dimbali leen ñu ko waaw mais ñi ko defagul maa ngi leen di ñaan ñoom it bu leen dara jaral ci àdduna ba dem di ko def parce que baaxul loolu ku ne xam ne ne baaxul ci àdduna. ñaaw na trop macha allah ñaaw na trop moom kenn mënu wax lépp. tey boo amoon conseil booy sa mbirum jigéen leen. ah xanaa ñu liggéey ñi am jë jàpp jëkkër sax di sëy ñi ñu liggéey góor ñi mayeetuñ kenn ñoom ñëpp a kuy sëyee ku dul sëy ñoom liggéey daal moo fi nekk amul leneen à part liggéey amul leneen ñoom ñëpp a yem moom ku ne góor baax na sa bàyyi tax te bu la waxee sa yaay fu mu jaara moom nga suur ko dañu sant yàlla mu ngi rek te góorgóorlu rek te gën a gëm suñu bopp loolu rek la amul leneen ñoo far ah man de man man moom mu ne woon góor yàlla lañ moom ñun kolobaan lañ am si la ñuy dóoree suñu waar bu ñu xëyee fi lañ am daal fu ñu ko amee fii lépp lu ñu am daal fi lañ ko amee ñu jigéen daal ñu gëm seen bopp bañ kenn yàq seen der ak yooyu noonu ci mbedd meeg yooyu noonu loolu moom dafa ñaaw quoi en tant que ay jigéen en tant que ay góor waaw loolu laay conseil gars yi waaw